2006 bi. ba may xëy fajar di liggéey. boobu maa ngi dëkk HLM Grand Yoff. Euh, Tigo ba ma newoon ñu joxoon benn 4x4. may xëy di taal bi di liggéey. maa ngi dingat Serigne Touba. ci fajar bi may jóg di hmm. bis boobu. ci tisbaar bi. ku ma gën gëm sëriñ tubaa amul woon ci suuf si. Hmm. waaw boobu. ku laajoon sama bakken bu xalif général sëñ Saliou ci jamono jooju bu laajoon sama bakken ma joxe ko. fajar bi may xëy maa ngi dinga sëñ Touba. Tisbaar murit kat maa bëgg sëñ Touba. Tisbaar gisuma ku doon dox ci suuf ku ma gën a bëgg sëriñ Touba ci jamono te ba tey may waxee yow Mbacke mosuma seeti nit mu wax ma ci seen Touba parce que bëgguma ko woon mosuma gis lu ñu bind sëriñ Touba ma liir ko télévision bu ñu wanee sëriñ Touba dama koy. jàppale ah dëgg la ah kay dama du rajo du dara bëggu moo dégg. parce que bëggu moo gis nu dul li ma nekk. rek ma tiim bu cinquante iya. quatre ans la am. du ma wax dara lu neex ci nit. Hmm. parce que Ahmadou Mbacké Khadim hmm. Rasoul. du wax dara lu ma nit di naan jërëjëf. Hmm. bugguma ko. soxlawu ma jërëjëf kenn. damay wax li nga xam ne. du ma ko deewaale. ci li ma war ci sama digganteeg Serigne Touba muy lan seede Serigne Touba. Mbàkke sama biro laa toog. billaahi wallaahi wa taalaay. treize heures jot ñu war a pause. bu ñu mësaan pause sama xarit dañuy woo ku nekk dañ gën a dem lekk. ñu dem restaurant ñu dem cantine ñu dem fu nekk. bis boobu mel ne dafa am lu ma jàpp ni ma toogal. ma ne leen dem leen après naa woote ñu livré ma. fi ma toog Mbàkke. sama xel dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa moom rek laa xamoon moom laa bëggoon moom bokk na si di taxoon ma doon xaadiriya moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi ma toog sama xel dem ci yonent bi ma dugg Google bind poème sur le prophète Mohammed ay sites yu bari génn ma cliqué ci benn boo xam ne xawma ma ko wallahi lazim xaw ko mosuma ko woon xamit avant waxtu boobu muy ht com com te dama ci cliquer sur xawma lan lay tek bi mu ko li ci a ci ci poème moy l'attirance du cœur vers le connaisseur des mystères l'attirance du cœur vers le connaisseur des mystères en tant que intellectuel mané li l'attirance du cœur vers le connaisseur des mystères c'est qui le connaisseur des mystères connaisseur des mystères mm-hmm. lii foog ma liir ko mm-hmm. Mbàkke ci français jàngu ma woon arab ma mm-hmm. koy lire ci français di ko liir di ko liir di ko lire ba nit ñi ci waxee yonent bi commencé di ma def ay frisson sama yaram bi di daw ma koy lire di jooy ma koy liir di jooy ci biiro bi ba bañ ko ma fa fekk ma jóg caabi bureau bi ba ma liiree ba mu jeex ba ci suuf lu bind de point points Cheikh Ahmadou Bamba ma mere sama bopp man ki ma doon dingat moo wax lii ci yonent bi sallallahu alayhi bi nga xam ne man maay woote ne dama ko bëgg. Mbàkke ma jàpp ne bis boobu noonu Seydina Mouhamed ci boppam moo ma présenté Serigne Touba. ndax bi ma jógee ni yonent bi laay seet lu ñu bind ci moom lu ma neex pour ma liir ko li nekk ci àdduna bi ci ay poème ci biir internet kenn xamul lu mu toll. Mm-hmm. lu tax mu génnee jazz bu xulóom. lu tax mu génne Jazbul Xulub te binduma Touba binduma Serigne Touba poème sur le prophète Mohammed la li ci génn xaw ma nu mu toll ci arab ci monde bi ñu ci bind ñëpp Jazbul Xulub boobu laa cliqué bi bi ma liiree auteur Serigne euh, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim dama génn bureau bi taal oto bi ñu ma jox dem ba Sandaga Omar Gajaga bi ngi may dégg te Touba la dégg su ma jug cantine mm-hmm. Omar Gajaga moom laa njëkk a ñëw seet si ne ko Omar dafa am lu may seet mu ne mu loolu la ma ne ko xasaayit bu ñuy wax l'attirance du cœur vers le connaisseur des ne ma ah man de xam naa ne am na ku ne fële kuy jaay ay xasaayit dinaa la boole moom demal nga laajte ko mi ngi tudd xaw ma naka fàtte naa demee nga laajte ko mu ñëwee laajte waajooju moom dégg na français mu wax ko mu ne ma boobu mooy jazbul xuloo mm-hmm. ma ne ko moom laa bëgg nga jaay mu sëñ mënuma liir arabe mais wutal ma bi nga xam ne dañ koy def transcription moo mën ko liir ak euh, mën a lire également li li ñuy wax lan lañ ci wax comme ni ma ko doon lire français ci bureau ba waa ji wutal ma ko ma dellu si si Omar Gaja ga mu jaay ma benn CD wu Jazbul Xulóob bi nga xam ne Hizbut Tarqiyyah ko Xuddoos moo ko way 2005 ci màggalu 2005 maanaam bi wees walaay sa ma jël ko yóbbu sama kër ma wàcc liggéey wàcc maanaam yeggali ma sa liggéey bi ñibbi sama kër bu ñu ñibbee ba kër ba dugg si saal bi dugal CD jas bu bi nii muy way may dégg may may liir ki ma paas léegi sama soxla wàcc di sept ñëw sone jànq bi ubbil ko bi muy dugg si kër gi mi ngi dégg jas bu xulóob bi ci kaw mu naan kii def lii de bu ko fi ab Ablaay fekkee bu waaxu ba dugg si saal bi fekk moom a toog jàkkaarloo penku tey jas bu xulóob bi xasaay bi di xool ma benn lu xaw a jaaxle dellu si néegam dem sangu ji su meeku ñëw moom it muuru toog sama ginnaaw noonu du teekuru sa bi ma paree bu dee yow loo xewle lii ma leen njëkk a nettali mu sëgg moom sama soxna mi ngi may dégg mu ne ma Serigne Touba amul worom ma ne ko lu tax mu ne ma bi ma takkee moom moo wax de mu ne ma bi ma takkee laa mësal woon ne Serigne Touba ñaan naa ko lu ma mayul ma ne ko mooy lan mu a ma dama mës a ñaan Serigne Touba mu may murit te yow bi nga may takk takkoo ma en tant que murit tey nga taxaw ak man naan ma lu dul Serigne Touba bu ko doo ko dégg ci kër gi. dégg jamono Serigne Touba nangul na ma bu yàgg. nangul na ko yàgg sama soxna. sëy nañ ay at. 2001 ba 2006 bi ma leen di wax. Mm-hmm. moom moomu dafa jooy ne ma. nekk na sëñ Tuubaa kenn du ko ñaan lu mu nangu te moo ko nangoo ah, mbaa lii moomu dugal ci yoonu sëriñ Tuubaa ba léegi nag su ko guma jëmbalu ci kenn sama magi soxna mook sama soxna bokk ndey ak baay muy murit saadix ñëw ci kër gi déggaat la même chose may yokk xasaay mu doog a ñemee wax ak tànn nag man si sëriñ Tuubaa mu ñëwee ne ma Ablaye li ngay déglu xam nga ko ma ne ko xam naa ci tuuti mu may naa la boo ko boo ko boo ko boo ko teg nii semaine si sa biir kër gi te Serigne Touba waralu boppam ñëwal wax ma ko ma xàcc ci yoonu Serigne Touba. waaw instant ndaw la tudd. boo wax ma loolu ma ne ko dégg naa ko man leen ma ko fas yéene tur sax bàyyi ba koy def semaine lii fas yéene ma ko fas fas yéene ma ko bàyyi. Mbàkke ñetti fan après bi ma ko commencé ñetti fan après. billaahi lazi laa ilaaha huwa. maa tëdd di nelaw. jékki-jékki gis sama kaw sama bopp si nuage ci gént ma tiit sëgg di xool si suuf ma dara ndax soriwaay ma gestu gis Serigne Saliou Mbacke mu ne ma Abdoulahi ma ne ko naam Mbacke mu ne ma xanaa xamul lu yàlla wax maa ko wax barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi doom yi ma bàyyi sama kër sama juróomi doom bi mujj juddu 2014 moom laa tuddee Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Mbacke Diouf lii la ma sëriñ Saliou wax Abdoulahi xanaa xamul lu yàlla wax maa ko wax bàkki ba jël boobu yeewaat ci fag trois heures de matin bi dugg si douche bi di sangu génn sol sama yore wolof jëlaat caay bu oto sentel boobu fëgg sama soxla ne ko maa ngi dem Touba bu dem lu xew ma bu ma station Total Liberté 6 boobu Total yi sentel joxoon yëpp ma ne ko defal ma plein mu defal ma plein ma ñëw fii kër sëñ Saaliw gaare huit heures bi ma fekk bunt kër sëñ Saaliw am benn waaye bu génn ma ne ko sëñ bi la def mu ne ma waaye ma ne ko man de dama fi ñëwoon di seet sëñ Saaliw mu ne ma xanaa dëkkoo fi ma ne ko déedéet mu ne ma sëñ Saaliw du ubbi tey tey du bési ubbi parce que boobu xaw moon ay bisu ubbeeg ay bésu tëjëg yooyu mané ko ah sëñ bi man momo fi indi mu ma boo dal de dama nga dal fo ko suba wala ginaaw suba xaw nga doog a ci mané ko baax mu dem mo wéru ci auto bi wéru ci auto bi yóbbaale won jas bu xolo transcription bobu ñu ma joxoon ba ubbi auto bi fu fek xaw a tuti tuuti ba koy lire ne yow ki gis bik bu fekkee ne yow yaay Serigne salou yalla bu ma fi jóge te gisuma la waa fekkat ba fa taxaw ba ne bi yaa taxaw ba léegi am na ma tenga wuti fo dal ma ne ko waa dégg naa la moom mu dem yoonam keneen ñëwaat ma dabaat keneen ki ci des ne ko sëñ bi ma ne ko dama ñëw pour gis sëñ Saliou mu dem ah sëñ sëñ Saliou du bi tey ma ne sëñ bi man de li tax ma ñëw fii dafa urgent ba nga xam ne foog ma gis sëñ Saliou mu ne ma waa léegi xoolal demal ci kees be soo demee nga laajte ku ñuy wax Tayib Jaxate tey sëñ Tayib mi ngi may dégg mhm. mu ne ma laajteel Tayib Jaxate nga dem wax ko sa problème dama ñëwee di nettali Taïb Jaxate li tax ma ñëw ak gént beeg yëpp Taïb Jaxate jóg ne ma xaw ma ku dul gis sëñ Saliou waaye du yow yóbbu ma ci benn nekk berdel ma yoon woos ay soxna ñu berdel ma fekk ba suuf donc ba woo ma ñu julli tisbaar fi ñu jullee tisbaar pare mu ne mu ñëwal fekk ma fi ma toog ma ñëw mu yore ay caabi yu bari di ubbi ay buntu di tëj di ubbi ay buntu di tëj di ba ma jàkkaarloo Sëriñ Saliou comme ni nga toogee moom kenn ak yàlla man Taïb Jaxate ak Sëriñ Saliou Taïb Diakhaté sëgg di dey sëñ Saliou di ko nett di sëñ Saliou di ko naa man sama bopp naa wax naa waxal sama bopp 27 juillet 2006 may waxal sëñ Saliou te amoon kàttanu wax may sëgg di wax di jooy sëñ Saliou ne Abdoulahi nangul nañu la lii mooy sama jébbalu ci si sama ñi ma xam ñëpp boo xamal leen ni que bis si tey murid laa wax ko sama waa kër yow sama soxna ne ko jébbalu naa ci Sëñ Saaliw wax ko samay xarit ñi ma jegeeg ñi ñu coow li commencé dem ba egg si sama sëriñ ya ma nekkaloon ñu werante am naag amul du moom dañ ko jaawale fu mënul nekk wax ji bari donte am na si ñu baax ñu ko nangu. ak mhm. philosophie. mais am na si yoo xam ne sax yëkkati na seen kurus tëgg ko. yooyu sax du. jarul dellu si mm-hmm. mm-hmm. Mbàkke mm-hmm. bi loolu amee yàggul lool 31 août 2006 toujours ma accidenté accident bu métti ci yoonu Diourbel bi ak oto bi ñu jël si ma yóbbu ma hôpital xaw naka bekk bu Diourbel hôpital magoog yóbbu ma fa woo ambulance SOS mu jël si ma Dakar clinique pat la tëdd fa ay weer tëdd naa fa un mois ak lu topp ñu commencé yenn nit ñeeg daan gisagul dara waxoon nañ ko nangam sàngam kii li def dina ko rëccu nangam am ñu wax wax ñu doy waar day torox ko am ku ci ak te dégg naa de Abdou Diouf rek lañ ko lañ ma doon wooyee dinaa fa jébbalu ci murit waaye nañ ko xool day torox am ko fa nekkoon benn soxna boo xam ne sama xarit loolu ku mu bëggoon yow seet si ma ba sama kër ndax tiit ndax xamoon kooku ay waxam lu wax lu mu wax tisbaar tàkkusaan nga gis ko mu ñëwee wax ma ko ma ne ko waxul ak man yéen lay waxal te boobu kenn wax ma dara kenn doyu ma dara kenn jox ma witt aw ma dara ma ne ko waxul ak man torox yéen ñi fa des lay waxal giñ naa ci Cheikh Ahmadou Bamba fii ba àdduna du tukki du amati taalibi bu ma gën te loolu la yàlla dogal sax. ñu jógee ci loolu. man ñëwaat Dakar amaat beneen accident. yaa gisagul dara. kii tànk demul tuub jébbalu ji jéggalu ji wax nangam sangam. ma ne ilaa yow mi diin du ma ko def. xam nga kañ la ñuy gëm ni torox na. bis buñ ma déggee ma waatee leneen lu dul Serigne Touba. mais buñ ma gisee may lekk mbalit bu ñu waat ni torox na. ndax man fu mu ne nii mbalit rek hôtel laa yemale. lu dul sëriñ Touba ne bëggatuma ko. affaire yi nekk ci yooyu ay yéeg di jóg di daanoo jóg di daanuñu génn ma sama kër kenn sama njaboot bëccëg. ak sama liggéey ñu génn ma. parce que moom mm-hmm. syndicat islam ma am ak problème tigo xeex ak ñoom ñu porté plainte ma porté plainte ñu xeex ba ñu génn ma sama kër. Mm-hmm. bëccëg ndar kam. allahu ma dund loolu yëpp mais keroog saa yu amee keroog laay gën a yuuxu Serigne Touba. Mm-hmm. ba yàlla defal jàmm stabilité di am ci lu bëree bëri bëri ma jóg jóg tukki dem aéroport euh, Praia Cap Vert ñu jox ma fa responsabilité bu mag waaye dafa benn société boo xam ne ñu ko fa doon doog ubbi muy Forever Living Product man la ñu yónni woon pour ma def euh, démarche yi foofu ci hmm. Cap Vert ma def ko fa deux ans ñibbi si ñu jël ma aéroport Yoff ci Pape Mayor ma nekk fa directeur euh, astafurlah ma nekk conseil en communication ba aéroport AIBD bi di ubbi wallaay seen bi aéroport ba AIBD di ubbi 2017 le 7 décembre 2017 géntu Serigne Saliou ba delu ci wat du lu sax yoon yootu ma du lu ma du lu ma wut du lu ma ñaanon parce que soxlo mo dara ak ngi doon dund Serigne Touba doyna na ma tat ñu ne ma faw nga dem Touba wuti ñaan ma ñew ba buntu Touba fofu ñu def genre bunt boobu boo jógee Mbàkke di dugg si genre mm-hmm. tabax bu arc bi mm-hmm. dara rëyee rasulillahi sallallahu alayhi wa am ku ma dab te gisuma ko mu ne ma boo duggee biir Touba dama laajte Samad mooy faj saajo allahu parce que Serigne Saliou Mbàkke allahu xaw ma sax kuy Abdou Samad billaahi wallaahi wa taala mais bi ma duggee ba biir Touba ci faj kër bërëb bañ ma wax jëmmam laa gis kanamam laa gis ma ne kii dama koy gis télévision waaye mosuma ko gis bët muy jëmm ji toog barke Cheikhul Khadim kenn dootuma waxal tu ndax ba kenn kii moo yegale barke Serigne Saliou Mbacke démb laa koy doog gis nii ci jëmm démb lu dul télévision mosuma ko gis te lii du ma ko denc tàggu sama soxla tàggu sama waa kër gi ñëpp te suba damay xëy Tuubaa te ni ma ko xamee 2017 ba léegi mosuma jéem a forcé sax ku ma indi si moom sama benn xarit bu ñuy wax Salih Hatim mi ngi mi ngi États-Unis yàgg nañ xamante musuma xam ne dafa xam sàng bi démb ñuy waxtaan ci benn waay boo waxoon du xaw a doy waar ci sëñ bi fan yi rek ñu ci waxtaan internet noonu ba ma gis moom mu bind di ci di ci di jooytu loolu ma woo ko téléphone ne ko bàyyil ma waa ji Sëriñ Tuubaa kenn mënul wàññi ay mbiram. dëgg na. ñu waxtaan boobu ne ma gis nga barke sëñ Abdou Samad ma ne ko yow man sëñ Abdou Samad ngay wax. mu ma bu bu Touba bu sëñ Souhaïbou Mbacké. ma ne ndax xam nga ne 2017 ba léegi maa ngi koy seet mu ne ma coupé sa téléphone. incha allah coupé sa téléphone maa ngi lay woowaat. Ah, ma coupé sama téléphone. incha allah sëñ Abdou Samad woo ma man. waaw. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. Ah, waaw waaw xale yi Mbacké Balla. waaw waaw reprendre. dama ne 2017. waaw sama géntu bi hmm. te du ma du ma sabablu Serigne Saliou sax mun naa wax ni dama jàng jasbul xuloo ba la ma ci gis ak yooyu yëpp ba luy am. mais sabab lu ma si dara. sama kër laa toog te di nelaw normalement géntu ñu ma foog nga dem Touba. kalay kay faj sa aajo. Cheikh Ab Serigne Abdou Samad la. te xaw ma ko. bi ma duggee biir Touba jëmm bii laa gis mu toog. ma ne kii dama koy gis télévision. te yàlla xam ne musuma ko gis musuma xam ku ma booleek moom musuma wax ak moom. démb laay waxtaan ak sama benn xarit wala bërki démb vendredi ñuy waxtaan ba mu tudd sëñ Abdou Sabat moom Saalihaati salaam mi ngi États-Unis mun na ma laay ma ne ko da nga xam kooku mun na ma moo kooku di sama sëriñ ma ne ko 2017 ba léegi maa ngi koy xaar maa ngi koy seet mu ne ma coupé sa téléphone. maa ngi lay woowaat léegi <laughs> ma coupé sama téléphone toog di xaar wooteem sëñ bi woo ma. allah akbar lay gën naa la jërëjëf jërëjëf lay sëñ bi. balaay si li ma dese sama dund fii yow Serigne Touba bi. ndeysaan jébbal naa la sama bopp. ndeysaan yàlla ah, amiin amiin amiin la ñuy jërëjëf. yeesal sama jébbalu Serigne Saliou. yeesal naa ko ci yow. àddina ak àllaaxira boo ma ko nangulee. nangal na dama tamit. suñu njaboot gépp ñu ngi leen di sant di leen